Thank you. yombal ndax pour mu gaaw rek pare ba ma dem xooli sama yaay ndax wóorul daal kër gu mag ak ni mu ëmbee noonu ba diis tey ndeysaan avant pour ma dem sama yaay dem ma sama yaay damaa dem sama maam man koy maam sama yaay sonn na mun ma sa yaay lu ko sonn ba day ëmb maam di ma rek ay maam sama yaay sonn na de laa tey tooñ nga nag. moo bëgg coono boobu waaye kenn tegu ko ko ndax sama yaay mu am jom xaarul kenn ci dara sama yaay musul bokk bootaay musul dem musul dikk musul xam lu ñaaw sama yaay lu baax rek la xam ñi ma daan dëkkal foofu doon jaxaaw bandat ko ku ci daan jàngi moo la daan dooleel yëkkati mu rek chocolat jox la yëkkati lépp jox la doon jàmbaar doon gaynde ma ne man nag man suma ma màggee war naa am jom man sama jom foofu la jóge sama jom man ci àddina faatu foofu foofu la jóge moo tax man ku ma wax dara duma la faale salaamaaleykum waa àddina salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum sama mbokku internetu Sans Limites TV euh, mbégte ak joie euh, seen doom seen xarit Fatou Mbaye euh, nee leen actualité people bàyyi leen ko sama loxo ak Sans Limites TV ci seen concept émission bi nga xamante ne mooy face à Fatou waxtaan naa naanaan bi saafante moom soit mu ñëw soit ma ñëw nee leen sotti seeg def si la ak Sans Limites TV fësal ak wan ak dëggal fii la fekk naa la du succès rek nga changé du dara loo xamante ni tey euh, mel nga ko ba nga am benn changement vers man euh, borom keeskaay euh, boroom Sénégal xale bi nga xamante ni macha allah tey la xëy guddee wàcc soxla yu dara ay góor sama waaj sama waaj naa la nama ngi ci mais gàcce ngi ci kenn du yow Cobra Cobra Mamy Diallo tey moom laa ñëwoon ak si seet si ko sama jumelle bi borom keeskaay nee naa la léegi sax borom ndakaaru Njaay la kenn du moom moo mën nag sama waaj nuyu naa la. <laughs> nuyu naa la Ndoye Marie borom Ndoye yaay ju baax ci borom mag ju baax ci sama xarit bi li nga wax rek dëgg la ndax dama ci ñamali tuuti rek baax gi yaa ko waral sincère gi yaa ko waral ndax doy da nga maa bëgg dama ma ñëwee Dakar fii macha allah nee naa da nga maa dootu jël ma en charge macha allah barki démb ceeb yaa ngi nee bool yaa ngi nee tege kon yow mënu ma laa fay dama lay ñaanal rek maa ngi nuyu téléspectateurs yi ak téléspectatrices yëpp macha allah képp kuy nit di doomu aadama maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal jàmm di la ñaanal sutura ñi ci hôpitaux yàlla may leen wér ci barke Seydina Muhammad ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw yàlla sàmm leen jàppale leen delloo leen seen kër ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Diallo ginnaaw bi nga nuyoo waa àddina nuyu waa Sénégal Cobra Cobra la ko nit ñi gën a xamee sax ndax Diallo jéeri bi man rek maa ko xam loolu <laughs> nga nuyu waa àddina nuyu waa Sénégal nuyu suñu amee internetu sans limite ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy safoo ñoo ñuy seetaan euh, tey lu ñu def rek ba am courage di ko defaat ñoom la nga nuyu leen saafante ak ñoom nuyu ñi nga xamante ni euh, caabi da leen féete ginnaaw ñuy ñi nga xamante ni ñi ngi ci lali hôpital di ñaan yàlla yëkkati leen ci jàmm ku nekk dox ji say activité euh, Mamy Diallo gis nañ ni femme femme brave femme femme boo femme battante femme boo xamante ne day indi juróom def ko mille Euh, liggéey rek euh, ñaq jariñu euh, ñi gis ni ñi ngi ci moment weer bi nga xamante ni yaakaar naa fi la noos fekkee baax fi la fi la commerce fekkee baax fi la li nga xamante ni lépp luy business rek boo ko doxalee ci moment bi nga xamante ne mooy weeru décembre business bi day dox ñi bëggoon xam ni gis na yaa ngi ci salon yi macha allah yaa ngi ci prêt à porter yi ñi bëggoon nga wax ñu nan ngay doxalee instant bi parce que ñu ngi ci moment décembre bi parce que dañ naan décembre fi la jaaykat yi seen jaay di a doxee macha allah nag Ndoye Maane madame Ndoye li ma laaj ma neex ndax fan yi maa ngi nii ubbi Dakar mais ñu bëri Thiès dañuy jàpp ni dañuy découragé daal di jàpp ni Mamy dafa bàyyi place am nekk Thiès dem Dakar te euh, c'est ndax boo ubbee place dañ fa toog nit ñi miin la nit ñi xam la nit ñi ñëwal la nga mën a jaay sa yenn bagage yi ndax gisoo bu yàggul dara voyage naa fi xam nga dem uti quelques bagage ñëw bëgg naa tamit yooyu jar moo tax sama xaw a toog Dakar benn las temps bi mais man Thiès mooy sama base ndax bitig bi du dakaar ak Thiès rek am na sax Touba macha allah ndaamaatu meeru baylaat Touba tamit am naa fi tam maa ngi ñaan yàlla amaan mbuur ak euh, fi nga xam ne mooy Kaolack fépp sama soppee nekk rek maa ngi ñaan yàlla ubbi fa bitik bàyyi fa représentant boo xam ne moo fa nekk décembre bi nag weer la boo xam ne dafa neex moo tax boo demee Thiès euh, maa ngi fay jaay ay yëri góor yëri jigéen fii tamit dakaar maa ngi fi jaay ay yëri jigéen macha allah yu nice yu classe parfois ay robe soirée tenue de soirée yëpp dama koy jaay ay robe marinière mère yëpp dama koy jaay macha allah loo ci bëgg cheveux naturel lépp lépp dama koy jaay pour décembre bi. décembre ni mu ubbeekoo nii yëg nga ci. non dafa neex mais avant décembre bi sax mi ngi joxe ndax euh, Ndoye Mar Maram Ndoye nag Youssou Ndoye dafa woyoon benn way mais dafay dëgg soo ñamee Dakaaru xam ne neex na waaw waaw miin nga Dakaaru xam nga ne Dakaaru neex na Dakaaru dafa neex. Diallo Diéry mbaa waa Kees la nangu waa Kees mere la. déedéet ndax man Kees laa am nag ndax xam nga tamit neex na waaye loo am manger boire bi fii nga koy lekkaatee boo amul fulla moo tax faaw ma daw Kees bu ko defee xale bi ñu liggéey rek yoon ne mais boo toogaatee fii rek day gën a mitti Mm, ndax frais jëli début bi métti woon na. waaw métti na nag vraiment su ma ne métti wu rek damay fen mais man moom dama am gëm-gëm dama doylu ba dëgg yàlla ndax liggéey moom dafa metti faatu surtout ñun bitig yi nga xam ne ay millions ñoo koy defar ndax place yoo xam ne boo ñëwee di nga plafond di dinga peinture di nga carole di nga defaraat décor rek léegi dafa cher moo tax nee naa li dara boo koy def da nga koy mën nga def taaba taaba ba dajale sa xaalis mais boo ci duggee noonu rek ndax bëgg toppandoo wala bëgg def comme sa morom ni mu def da ngay loowu ni ngay loowee mooy sa xaalis day sa financement day jeex te doo am ay retour doo mën a jaay mi ngi mel ne tey jii benn faatu mbay gis benn man ko braaw benn man ko braaw gis benn Fatou Mbaye am bitik mu bëgg am bitik du noonu il faut nga taaba taaba ba dajale benn som xam nga som boo xam ne da nga ne ah lii de naa ci ubbi bitik waaye lii de naa ci del macha def ci loo xam ne mooy marchandise yi bu ko defee yow doo perte mais boo toogee nii rek ne damay ubbi bitik bitik dafa mettitu ay caaxaan ndax di nga monter clim di nga monter porte di nga defar di nga dindi dafa metti daal waaw euh, waaye ba mu méttee tamit dama amoon force man gëm yàlla xam ne day baax salon yi nekk Thiès di liggéey place yi nekk Thiès di liggéey bi boutique ba muy salon ba ah muy bi macha allah ñuy liggéey boole ko man tamit samay business ak samay publication sama métier influenceuse bi yàlla di jàppale macha allah du dara lu nag lu ci dugg du kenn ku ñëw ne ma am lii wala am laa ah dama góorgóorlu dama taaba taaba ndax man sama yaay mooy sama référence dama roy ci moom ndax moom lépp lu mu am tey jii du kenn ku ko ci dimbali. moo tax dama bëgg moom it ma mel ni moom rek parfois su ma mel soxna sax ko koy rus a wax waaye dafay jékki-jékki bete ma ak benn chèque damay rus sax saan ma ne ko yaay li jaru ko am naa ma déedéet doom booy liggéey da nga koy dimbali ndax jàmbaar nga moom daal laa xam ne moom ma ci fekk si jàppale ma tooleel ma wax dëgg yàlla mais leneen raxul ci sama liggéey muy ay genre loterie wala ay genre natt wala ay genre dara déedéet sama xaalis dama taaba taaba. jot retour. waaw waaw yii ampagaay sax ndax ñun man benn coalition laa bokk muy sama benn mag soxna Diop ma koy nuyu de passage Diop a jubba kooku benn genre tontine la yor loolu loo am rek da ngay dugal sa xaalis soo soxlaa mu jox la mais soxlawu ci dara waaw mais ay natt yi nii nii moom bokk moo ko ndax euh, du may am jot benn ñaar. Euh, temps yi nga bi nga am pour natt parfois mën na la fekk sa live xam nga coow day indi coow yu sew moo tax préféré wu ma ko daal te man bëgguma ko ma ŋaaññi man dama ragal defet dama ragal gàcce ak dama ragal ku ma tooge moo tax ci lu ma dugg dama koy xam dama koy mën tamit tey bu ma dee def dara rek daf fekk mën naa ko lu ma mën du ko def waaw. Diallo euh, sa diggante sa yaay parce que mami Diallo tey nu mu mel yaayam la anecdote boo fàttaliku sa yaay dundee souffrance wala lu metti loo xamante ni euh, tey da lay gën a yokk jom tey mën naa ne moo indi ba fii nga ñëw ni loolu lan la sama yaay moom bari na ndax depuis suma su ko faatu di ko damay jooy dama bëgguma jooy internet ndax wax dëgg yàlla macha allah sama yaay dafa am jom faatu yow xam nga ci dara ndax ñëw nga sama kër yow sama xarit nga sama jumelle nga sama confidente nga yow sama biir ak sama biti duma la ko nëbbus mais sama yaay ku ko xam ne dafa am jom day bañkat buggul ku ko reetaan muy góor muy jigéen sama yaay bu amoon du ko naqari sax kenn du ko xamal doom sax du ko xamal. lu koy muñoo yàlla mu doon jàmbaar di liggéey ndax ba mu nekkee jaxaw macha allah baayam ku ne xamoon ne mooy Alaaji Moussa Diop Alaaji ma Moussa Diop Alaaji Maguette Diop ay baayam ñooñu dañoo yoroon ba feebar ndax ñoo daan indi satuwaaru or yi ñoo daan moomoon fas yi ci élevage macha allah mais xoolu woon loolu mi ngi yoroon biti gëm di daan doole ah sama yaay daal. dog bi nga fàttali hmm. bàyyi de. bilaay boo ko du ma ko wax <laughs> ndax sama ko waxee rek jooy. si yeeg yooyu. bilaay bu ma ko dama yàq émission bi te damaa bëgg waxtaan ak yow. bi indi fii. <laughs> waaw loolu moom. metti loo xam moo waaw loolu moom macha allah lu lu lu neex la rek ndax lu ñuy fàttaliku léegi rek jàmm la ndax sama yaay moom kër gu mag la nekkoon te ku ne xam na kër gu mag macha allah sëy dafa metti waaye sama yaay doon jàmbaar daan reyante daan geer xam nga bu daan metti yooyu ni mu ci bëgg a wax sax ndax sama xol day fees. waaw loo xam ne fàttaliku woon naa ko nag mooy ba mu ëmbee caatam bi ba diis. ndeysaan benn 4 heures du matin mi ngi ëmb sama caat bi mooy sama rakk ji rek sopp ke rek mi ngi ko ëmb ba diis na gàddu yanu boobu 4 heures du matin lañ daan yeewu ma ne ko waaye ma ne ko yaay tey est ce que doon naa ji tuuti fekk ba muy onk biir bi day jam waaye mu daal di gëstu xool doomam yi rek daan ne bàyyi rek bu subaa ma jaay fekk boobu xooyaloon na beñe bi ñu war a jaay marché ba pare boobu mu ngi ëmb sama rakk ji Fatou tey yaa ngi may tooñ nag wax dëgg yàlla ndax bëgguma jooy. bëgguma joxe internet waaye boo laalee sama yaay rek danga may laal ndax day jàmbaar ndeysaan ëmb caatam boobu ba diis ma ne ko yaay bul bul dem baal ma na dem jaay mu gestu xool ñu te jour boobu moom moo aye boobu ndeysaan sama papa nga euro moom ko jaayante am jom ndeysaan sama yaay daal di ne bàyyi rek ma dem man ko yaay déedéet doo dem ndax yow yaa ngi ëmb diis sama yaay biir baa ngi jam waaye ndeysaan mi ngi góorgóor fekk lakk nañ kii nañ xooyal nañ beñe bi ba pare ba ba ñu war a jaay ci fee marché marché bu mag marché central man ko yaay kon baal ma dem ma boo demee foofu doo boo doo mën a lakk di jaay baal ma force dem ñu force di dem rek ndeysaan ba ci yoon bi biir bi jam sama yaay dëgër doon jàmbaar ndax jour boobu moo waroon a togg moo aye woon mun ma bàyyi rek léegi su ma demee ba lijjanti li ma war a lijjanti ba nga bañ togg ba pare après ma tëdd man ko waan ñu dem ñu daal di dem saan ñu toog mi ngi lakk sama yaay ngi tibb di ci beñe bi waaye mi ngi dudd yaa ngi metti ma xam ne sama yaay fa yaa ngi na ko yow yaay munoo bàyyi xanaa ma def soo bàyyee ma lakk ma dem jaay mu ma demal nga jaay da noppi daal may saaga nag yuuxu ma ma daal di yenu palaat ndeysaan jooy boobu ma ma jooy jàdd ba ci biti rek ndeysaan daal sama rangoñ ndax man su ma daan jaay dama daan taasu su ma génnee nag taasu naan kaay jënd ci lii may jaay taasu way ndeysaan maire yi jënd ñu daal di jënd ma daal di dajale loolu ñu daal di daw ma daal def première plate deuxième plate après 6 heures du matin di commencé jot ak 7 heures noonu rek di commencé jot ndeysaan mu commencé leer ndax boobu marché ñi daan indi euh, légumes yi dañu teel a ñëw macha allah léegi ñu daal di ñëw ma jaay ñooñu première plate jaayaat ñooñu deuxième plate après biir bi sonal ko ndeysaan mu bëgg a jug mu jug tànki ma xam ni sama yaay jàmbaar la ndax daw na ba sonn ngir njabootam te loolu muy def yooyu yëpp ñun ñii ñoo tax ñun doomam yi rek ñoo tax ci loolu nag ma ne man nag jom war na ma fulla war na ma fayda war na ma personnalité war na ma ndax taaw dangay ngay am fulla taaw da ngay am personnalité taaw da ngay taaw taaw non taaw boo gisee sa coono nday faaw nga am jom faatu sama yaay jug ndeysaan di soox di soox man ko kon bàyyi ma bëgg nga la ba ci watiir yi mu ne ma mu ne bàyyi ma bëgg la jël taxi mu ma déedéet voiture laay jël ma daal koy nduggal ma ne ko kon bàyyi ma dem togg mu ne ma ne ko déedéet bi nag mu ne ma comme que ba am lu ñu dépensé woon nañ dem rek ma ne ko déedéet nañ dem ba demal yow ma jaay desi ndax yi bu dee buñ ko desalee day farox ma déedéet yow demal wala ñu tëjandoo dem ndax boobu bëgg ma faa bàyyi ndax dañ daan xëy kër gu mag di xeex rek ma daan ne ma daan ne ko yaay lii ngay def nii risque la yaay lii coono àdduna dara jaru ko nañ dem sama kër maam wala yaay nga génn luwe sama yaay ni ma fii laay toog ndax sa papa fii la ma dëj fi ma sa papa dëj fii laay toog man ko yaay de lii dara jaru ko ci àddina man nag xam nga ba ma nekkee xale dama attaché woon ci sama maam man nag ñu daal di jóge foofu ñu man sama yaay daal di dem moom taal man ma toog foofu ñu eggali jaay beñe bi ci gaaw gaaw gaaw mujj gi su ma daan tibb ni xam nga nii lañ daan def beñe bi teg mooy beñe rullay dama daan naan nii rek mu pare rek ma tëmbal ndax pour mu gaaw rek pare ba ma dem xooli sama yaay ndax wóorul daal kër gu mag ak ni mu ëmbee noonu ba diis tey ndeysaan avant pour ma dem sama yaay dew ma sama yaay damaa dem ci sama maam ma ne koy yow maam sama yaay sonn na mu ma sa yaay lu ko sonn ko ba day ëmb ba diis maam di xeex rek ay maam sama yaay sonn na de ndeysaan laata tooñ nga ma nag yaay moo bëgg coono boobu waay kenn tegu ko ko naat sama yaay mu am jom xaarul kenn ci dara sama yaay musul bokk mbootaay musul dem musul dikk musul xam lu ñaaw sama yaay lu baax rek la xam ñi ma daan dëkkal foofu doon jaxaaw banta ko ku ci daan jàngi moo la daan dooleel yëkkati mu roog chocolat jox la yëkkati lépp jox la doon jàmbaar doon gaynde ma ne man nag man su ma màggee war naa am jom man sama jom foofu la jóge sama jom man ci addina faat foofu la jóge moo tax man ku ma wax dara duma la faale ndax tellement euh, dama judd fekke sama coona nday ndax kër gu mag ku ne xam na ko nag du ñooñu rek kër gu mag fépp la metti kuy sëy kër gu mag moo tax macha allah li koy ñaanal mooy yàlla na fekkee njariñu njabootam ndax bu ko fekkee wu rek amul sens ndax coono àddina na la daj di jóoba jubal lu ne la daj mu doon jàmbaar ndax nit ki di jaaxle sax daal dem ci sa ko woolu rek ne ko may ma lii amul ku muy dem amul bu ñu waree sombi ñoo koy naan bu ñu waree laax ñoo koy naan macha allah tamit sama papa doon ko am jom doon ko ko sagal doon ko ko soutenir sama papa lu ma am jox na ko sama yaay moom tamit macha allah yàlla di leen dimbali di leen dooleel man moo tax nit dara mënu maa saf ci àddina dara dara dara mënu maa metti tamit nit mënu maa wax lu ma saf daal ndax li ma dund traversé ko sama yaay xam taaw dafa garaaw. laay taaw dafa garaaw ñu lay xeex sa yaay yor benn néeg benn néeg bi yow ak say rakk yëpp ci ngeen di tëdd. defar beñe. boo leen xëyee nag seen beñe ñu liggéey sama yaay tàggat ma ci liggéey dooleel ma ci liggéey parfois suma ma demee nit may ma dara su ma ñëwee danaa ma yaa ko ko ñaan ni ma tëll met ni ma tëll dóor daf ma naan dóor nag di ma jubbanti dafa naan dóor di ma jubbanti di reyanteeg man ngir rek ma baax na ma dama soboon. su ma demee tey jii dem ci samay xaritu yaay nii wala dara ñu may ma dara ma demee ko yaay may nañ ma mun ma lu tax ñu lay may ngu koy jël te dañ koy soxla mais moom buggul lenn lenn nit mu doon jàmbaar ndeysaan Jóob jubbaa Jóob def na waree fam yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla jàppale yal na fekkee suñu njariñ faatu loo boo gisee parfois lu bari may daw du ragal de ndax nday bu la sagalee rek sagal ko faatu sama yaay daf maa sagal daf maa jur fi ma war a juree téema tette yar ma yir ma man ak samay rakk jooy ñu dara dañ ko daan jaral ñuy jaay sama yaay ba jour bi muy jur sama rakk jooju noonu suñu cat mi daa demoon jaay marché mi ngi metti mu di ko muñ toog ak matam ba mu jigi mu daal di dem kër ga daal di jékki dem hôpital dixième woo sama ñoom maam sama yaay kenn xamalu ko dara kenn xamul ko soxlawul kenn lenn munoon naa dem ci yaayam ndax ku ne xam na mer na bu faal munoon naa dem ci papaam ndax ku ne xam ne alaaji Moussa Diop mais mi nga ànd ak ngoram moo tax àdduna lu dul ngor ngoro ko gën yàlla nañ yàlla may ñu gën a doon gor ndax tey jii lu ko neex mën naa defa ah. kenn du ñëw taxaw ne ko maa la doole loon wala maa la dimbali loon lu ne bu lu ko neex mën na ko def moo tax Fatou man mënu ma reew mënu ma bew mënu ma yëg succès dafa am ma jaar ndax sama yaay parfois bu daan xeex kër gu mag sax man maa ko daan waral ndax man boo ma ne waan coosit rek ma ne la coosit saa daanaka bu ñu bëggee jot sama yaay sax si man la ñuy jaar waaye saan mu gore loolu muñ rek ngay gis koo xam ne da daan ñëw saaga xas dóor wala jiiñ ma dara ne yaa jël dara dóor ma ba may bëgg a dee du ci wax ndax xam na ni kooku moom lay ut mais macha allah jigéen ju baax ngi noonu sama yaay yàlla nga gën a gudd fan Diop may sa yàlla nga gën a fekke da ngaa sëy sëy bu sincère sëy bu àndul dara yi sëy bu rafet moo tax yaay man tiituma dara dara dara faatu ci lu ne mun naa cee dugg dañ may xëy di ma tëkku ba ngoon du ma tiit sama yaay dafa liggéey dafa sonn ba pare dafa sincère ku sincère ni sama yaay mosuma koo gis ndax nit dina sëy si sëyu tricher bu sëyee ba ay gorom ak njëkkeem gis ko nii muy tricher pour tricher mais sama yaay sincérité lay dund sama yaay moom bu la bëgg du wax ak yow. bañul kenn nag waaye moom boo xamee ni kii mënuñoo composé du wax ak yow moom du def du dindi moo tax du ma ko fawee du ma sàggane sama yaay faatu sama yaay lu laa bëgg lu mu bëgg lu ko bëgg lu mu ma sant laay def lu ma sant bañ na ko ku koy def na ko su noonu dama lay bañ du ma la bëgg abadan daay man ndax damaa xool li mu traversé xool ci li mu jaar sama yaay jaay na beñe jaay na akara jaay na lujum jaay na bitik jaay na lu ne ndax njaboot yooyu yaay kenn mënu leen a fay moo tax góorgóorlu sagal sunuy dina nga wax ci ñiy sàggane seen yaay non ñooñu moom duñ ay nit wala dañoo fekkewul seen coono nday nday boo fekkee coonoom rek faatu bëgg ko yërëm ko te dama fekkee sama coono yaay ñi sàgganee seen yaay fekkewuñ seen coono yaay yaay du ay caaxaan sa yaay nay taxawaalu kat sax du caaxaan ndax faatu yaay bu la juree fa la war a jullee rek daj na lu métti loo xam yow doom suñu yaay dañoo sonn sonn ci ñun ndax faatu sa doom bu solulee doo am jàmm sa doom bu bu lekkulee doo am jàmm keneen ak keneen xoola tey ji problème man su ma nekkee nii am problème wala dara kenn kenn du ma lijjanti ku du sama yaay man tax moo tax man kenn ñoruma sama yaay ma ñor boo ma meree anyway soo ma bëggee anyway soo ma bëggul anyway faalewu ma ko laal faalewu ma la boo ma faalewul faalewu ma la mais sama yaay bu meree rek sama fit day dem ndax xam nga lu tax su ma jaaxlee moom rek laay gis faat sama yaay day xëy di woote sept appel ba quinze appel sama yaram sax dama naan ko yaay maa ngi ci jàmm maa ngi liggéey ma ne ma waa mami góorgóorlu nag bul def lii bul def lii non de mujj gi sama yaay man dama ne ko yow yàlla bu ma la sax rey ndax stress bu ma la teg moo tax parfois may wàññi lu bari ndax yaay nawle la te ku ne ma sa nawle mooy sa gaynde sama yaay dafa nekk jàmbaar rëddal ñu yoon bu baax kon nan baax rek sama yaay tax lu bari mënu ma cee bokk lu bari mënu ma damay gis euh, tentation yoo xam ne tey jii bu ma neexoon suba suba ma doon milliardaire mais Fatou bu ma xalaatee ñu xas sama yaay rek ma daal taxaw gën a dëgër sama sër nag ba mu dëgër ndax bëgguma ko ko xas bëgguma ko ko xas ndax indi lu ma xas kenn du ma ne adoomu diw bi nangam fu ma wax dañ naa ma yow sa yaay ji ni mu baaxee wala léegi ñu naa ma mami may tuul sa yaay dafa baax sa yaay dafa lii même jaxaaw bu ma duggee nii man damay jooy ba ni may ñibbee sa yaay daa baax sa yaay daa baax a dem am na ku ma fekk ba fii ñëw ne ma mami mu ne ma yow ndekete mère asu mooy sa yaay mu ne ko waaw mu ma man école base laa daan jàngee fa la Thiès lañ ma daan joxe vacances mu ne ma yow loo bëgg bis ni ki tey maay sa mag mel na ni ñoo bokk ndey ba sa yaay moo ma daan may mburoog chocolat gaañ bi fii la dëkk Ibrahima la tudd nit ku baax barki démb reer ak lu ne moom it neen ma il faut ma fay bor ndax sa yaay daf maa defal lu ne vraiment kon yooyu yooyu yëpp boo ko amee góorgóorlu rek moo la war moo tax dinaa góorgóorlu ba tey jóoba jubaa jóob màkka yi du la ump kër yi rafet yi du la ump te sagar taalaale nag jugal yaay mbir feeñ na ndax sa doom yi bu màggee rek nee naa léew léewtoo jeex na waaye bu mu doom yi màggee àtte leen say doom bu ñu màggee rek taral la jóob te macha allah sax yàlla teral na la ndax xaarul dara ci doom ndax sam papa teral na ko sam papa sagal na ko sam papa sigil na ko sam papa dooleel na ko kon macha allah samt rek sant nañ bu baax a baax a baax. ndeysaan lu jóge ci xol rek ci xol lay dem nee naa la Diallo Diéry euh, tey nu mel rek yaayam la yaayam nekkoon euh, femme bu brave femme boo xamante ne tey nee nañ tey euh, yaay buy sonn day sonn pour ay njabootam tey macha allah suñu yaay ji jóoba juba Eh, kenn du yow eh, nit ku baax nit ku dal soo gisee sax da naan du mooy yaay Mamy Diallo ndax ci dal gi eh, ci kenn du moom suñu yaay ji dundal yow da ngay dund sax ndax sa njaboot rek a la ñor tubaar fakala macha allah Diallo jëli ñi xam na ci internet bi nga ràññeeku ci TikTok bi macha allah kenn dootu la présenté fii ci Sénégal ñi gis ni TikTok mbedd la TikTok retrouvaille la TikTok mën nga ko bañ a am sax di suivre nit ki ñu gis ni TikTok bari na coow TikTok bari na détail mariage maman vulgaire bi euh, bi mu jàllee ay plainte ak lu ne jib na fi euh, gis nañ ni yow tey euh, génn nga def vidéo waroon naa dem mais mënu woon dem ñi gis ni loolu tey bari woon na ay reproche bari woon na ay détails nan nga ko dundee ak yan leeral nga ñu mën a indi ci loolu. waaw yooyu moom man moom daanaka doon ma ci waxati ndax li ma sama yaay wax bis boobu rek sama yaay moom day bëgg may noppi ndax nanaan ma mami maandu du ragal. waaye yàllaa ko bëgg te boo maanoo rek noppaliku te wax na dëgg faatu ndax euh, tollatuñu ci milieu boo xam ne lu xew nga wax ci nanu maandu man day wax dëgg yàlla des sama carrière détail dootul am ba ma wax ci ndax euh, surtout bu la ñëpp di topp tamit ndax faatu nit ñi dañu bëgg xoolal bu ma demee ci restaurant yi wala bu ñu génnee accolades yi côté yi kontaan ci yow wax dëgg yàlla di la soutenir kon yow yenn détails yi waru la daal te yenn détails yu jàmbur waroo ci dugg war nga maandu ba yow tey jii euh, ndax loo ci wax rek yow yaa tooñ ndax tey jii xam nga maa ngi toogoon noonu doon wax ndax lan jàpp naa ni sénégalais laa war naa cee mën a wax sama avis mais sa day neex nii du neex nii moo tax foofu moom léegi dama ciy maandu rek. Mm. dégg Mame Savon ñi gisoon ni temps yi am na amoon na benn détail euh, ñi naan. dangeen doon ut buzz la woon eh, ñi naan dëgg la mënoon eh, nañ mën a nga leeralal ñu pour ñu xam. <laughs> maam maam ay saay-saay lañ ñoo bokk ndey ak baay <laughs> ñoo saay-saay nag yàlla baax na ñaanal leen ñu rek yàlla musal ñu muccal ñu ndax ay jigéen lañ di liggéey am jom faatu mënoon nañoo def lu ñu neex maa ngi ne aw ma jëkkëraw ma dara te dakaar ku ne xam na di fi xew faatu heure lay tëdd wàcc heure su ma génnee mag samay càmmiñ ak samay frère ñooy ànd. lu dul liggéey ñoru ma maam tamit lu dul liggéey ñoru ko. bës la woon. waaw nañu ñaanal rek du dara. tontu woo de tontu doon dara dañ doon kii noonu rek kaf noonu non bësuñu sax ndax bës jigul gor ndax man daanaka maam sax ma ci maam sax ne man liñ ma ci dégg lépp ndax lépp rek lu ma ko waral jaay baax di wax ci ay programme jàmbur ci loo xam ne tey jii euh, noon nga maan wala nga wax ko en douce daal mais àddina boo génnee wax sa avis duñ la nangul ñii dañuy nangu ndax ñii dañuy nangu sax ñi bañ mais ñu lu mu ci mënti doon daal nañu maanu te man ak maam Ndiaye ñu ñaanal ñu yàlla saxal ñu sàmm ñu ndax metti na daal metti na tentation bu ne la ñu daj buñ ko waxee buñ ko waxul TikTok mbedd la bu ne la ñuy gis ñi di ñu rëbb ñi di santaane yu bon ñii di ñaan yu bon dafa metti lu ñuy dund dafa metti de ku ñu jàppalewul waroo ñoo xas moo tax nag boo nekkee ci yoon mu metti waroo di déglu sax man de tollatuma fi may dégloo ndax faatu li ñuy xëy di liggéey dafa metti boo xëyee lijjanti palaasu jàjja palaasu joor palaasu ne ñaata palaas nga bëgg koy lijjanti mënut a ànd ak coow ak jataay lu la waaye wax rek da nga koy sëgg man de li des sama dund lu ma waaye xuma reetaan dëmm bi nooxoor bi caga bi giwin bi sàcc bi seytaane bi lu ma waay wax rek ma reetaan ndax foofu laa toll daal ndax faatu yàlla mënuñoo teral defal ñu ni ñu mel mel ñu ni ñu mel di liggéey macha allah lu ñu bëgg am am ko lu ñu bëgg a faj faj ko bëgg koo booleeg coow bu yàgg sax yàlla jéppi la waaw wax dëgg yàlla moo tax. waaw man damay liir commentaire ndax man ci samay commentaire lay basé wu pour xam man li may def ak li may wax ndax comme coow bi nga doon wax noonu rek may gis commentaire yu bëri naan kii dafa seytaane dafa seytaane dafa seytaane wala dafa foo dafa foo dafa foo dafa foo fekk ni ku nekk ak sa gis-gis daal léegi yow loolu nan la la def waaw loolu day tax nga gën a defaraat sa toogaay daal di xam ne nag li la sa ndey di wax dëgg la muy lan problème jàmbur boo gis maanu ca ndax bu ma dégg loon sama yaay duma ca wax ndax nee na ma loolu TikTok moo leen boole maanul yaa ngi dégg tey ji bu ma ko dégguloon du ci wax waaye maa ngi jàpp ne rek ñëpp benn lañ te ku ne ak sa waxin ku ne ak sa gis-gis nga wax ci yooyu am waaye yow yooyu amee nga lire commentaire yi da ngay defaraat sa toogaay tamit ndax nit ki doo dëgëranteeg public bopp ndax public euh, fi ñu yegg nii tey ñoo ñu fa indi ndax gis nga tey ji ñooñu di wax noonu ñu bëri dañ may wonaan ma di koy seytaane gi bu mu la dugg bul dugg ci geeru kenn bul def nii def naa danga leen di déggal ndax tamit dañuy wax dëgg benn parti ndax nit ki mënoo nekk di liggéey sa liggéey bëgg ci boole ay détails wala di wax dëgg ndax àddina léegi boo waxee dëgg dañ sax nit ki seytaane la wala boo defee dëgg ndax man sincérité lay dundee en fait man sincère laay dundee tey jii mënoon naa bañ a dem noppi wala nga ñu wax man leen aw moon jot rafetal mais jàpp naa ni mën naa wax li nekk ci man xam nga mais yow li ngay wax du arranger ñenn ñi wala du doon loo xam ne lu ñu war a wax la en fait wala tamit boo ko waxee nit xeeb la ci xam nga moo tax l'erreur nag est l'humain yow boo defee yenn erreur yi boo loo commentaire wala nga seet commentaire da ngay da ngay reculer ndax tamit lu dul nit nit a ko gënta nit nit ay garabam ndax sangul ki nan sangul sa taar la la bëggal ki la commentaire ne danga da ngaa seytaane ngaa foo wala da da ngay da ngaa ragal sa morom jeeg kooku mi ngi lay bëmax ci dara mais yow da ngay xool li baax nga def ko li bon nga jël sànni ci mbedd mbalit ba vraiment. gis nañ ni am nga prank euh, def nañ la prank temps yi yàggul. Euh, ñi yebal benn ndaw mu ñëw sa place histoire ak yéen coog yéen euh, ñu gis ni saak bi gis nañ ci pisole gars yi di laajte nag ba xam original la wala fóol hmm, dëkk bi nag booy dox moom <laughs> yoo xam nga ma sax <laughs> bàyyi loolu moom rek la réew mi lu ne ko sa bopp lool hmm. xam nga xam naa noppi rek <laughs> ñu def ci code nañ ci def code rek ndax damay bañ ñu ragal daal wala naan daa agressif wala daa dara mais dëkk bi moom dafa wóor moom fam nga ànd ak protection. Uh-huh. Hmm, waaye ba pare plus que yoruma oto. Uh-huh. wóorul. Uh-huh. wax dëgg yàlla wóorul wóorul. Ngaaka Ngaaka Blindé ak ak ak ak Akhlou Brick seen làmb ji ñi naan Ngaaka ñi naan Akhlou Brick. man nag Ngaaka damaa neex ndax dafa réew te fi mu toll nii Ngaaka <laughs> Ngaaka réew na Fatou Mbaye Ngaaka réew na Akhlou Brick daa war a ba Ngaaka noppalu ba ko. ndax ngaa ko dafa réew ndax lu mu wax rek ngaa ko génne lu ko gën a ñaaw ngaa ko dafa réew. Diallo lan ngay wax ami internet sànni bi ñëw nañ seet la waxtaan ak yow fekk si la si place bi nga xamante ne moo nekk Ouest Foire macha allah yére yi yànj na euh, tubaar fakala macha allah waay dugg donc lu bëgg rek boo ñëwee ci place bi nekk Ouest Foire di nga ko fi am nga nekk femme battante euh, koo xamante ni xëy guddee waa sama waa ji euh, Diallo Diéry lan ngay tàggatoo amee internet sans limite. macha allah di leen ñaanal jàmm doy maari maram doy sama xarit bi nga baax loolu. maa lay ñaanal ci sa liggéey bi yàlla nañ ci gën a kawe ndax Fatou da baax yow sama xarit nga mag yow léegi ba ñuy ànd ak léegi léegi mat sept ans kenn mësuñoo àtte vraiment sama xarit nga vraiment nit ku baax nga yàlla la yàlla defal jàmm sa télé bii nga nekk yàlla yëkkati ko jàppale la doo leen leen macha allah maa ngi la koy ñaanal encore une fois di sant ñëpp nag di leen wax ni bagage yi nekk ndakaar rek mooy nekk Thiès mooy nekk Touba Touba nag leen lañ fa dul jaay mu yëre tubaab mais ak greffage greffage yi nag ñu ko fay jaay waay dañ koy nëbb ndax lu neexul ka fa wax dëgg yàlla waruñu koo def mais parfois clients yi dañ lay day ndeysaan te ñoom tamit dañuy sonn jëw ba Dakar mais du lu ñoo xam ne dañ koy exposé boo demee nii dañ la koy jaay rek une zapette macha allah te wax dëgg yàlla may sant sama cliente yi ndax faatu fu ma mënti nekk rek tey sama cliente yi ñoo ma fi indi ndax da ngay jaay sa live ba pare jaay sa snap surtout maa waa sat tamit di gërëm tamit képp koo xam ne sama partenaire nga à travers sama métier influenceuse bi may def ku ci mel ni ay ñoom genre euh, Jojo Glow macha allah ay waa marque Sara ba ci waa Wave sama marque yoo xam ne képp koo xam ne marque nga rek nekk di liggéey man ko bra ma lay remercier waale ndax ñoom tamit euh, poussé nañ ma ba l'avant ndax ku ci ñëw defal la check wala bindal la defal la contrat yooyu da lay permettre di ci mën a jënd say billet d'avion di nga ci mën a yëkkali say travaux ndax am na tamit école formation bu may waaj a ubbi Thiès bëgg naa tamit loo xam ne xale yi du ñu fay jàng na parfois seen yaay dañu bëgg ñu jàng mais dañuy duñu dañuy ñàkk am ñàkk moyen bëgg naa am ay sponsor yoo xam ne tey jii dañ ma fekk si ci loolu jàppale xale yi may leen ay don may leen ay tête pour ñu liggéey jàng coiffure am métier ndax lu dul liggéey faatu liggéey ko gën te liggéey dafa neex bu ñu xoolee ci sunu ndey rek war a liggéey ta doom boo màggee rek war a teral sa yaay waaye ndax sunu yaay soon nañ sëy nañ ba dee sëy nañ ba dagg sunu yaay sëy nañ ba mel ni mbalit barki Sëriñ Bamba waaw maa ngi tàggatoo ñëpp nag di mariage ka mariage ay man faatu waaw baax na maa ngi lamba mel ne ma lamboo bay njaay lamb naa faatu xale yu góor yi ragal nañ ma koo ci war a toxaan takk la daan borom làmmiñ bu rëy boobu nopp nañ ko waaye làmmiñ waa rëy fekk làmmiñ bu rëy yu liggéey bee koy laaj rek mais ndax waaye bu ñu gisee jëkkër ju baax ci say case ma far barke Cheikh Ahmadou Bamba ak sama bakkanu yaay. amoon nga may danga amoon amoon naa waaye daal dama yàq xel mi ko du sayal kii boo ko xoolee xam ne bopp kese la dafa muus dafa eew mu ragal. <laughs> non dinañ ñëw moo dinañ ñëw yàlla ko indi léegi ak Serigne Fallou moo ko yow mat yàqamti ma faatu nag bu baax bi bu jëkkër jafewul waaye bu baax bi bu am yërmande bi bu am sutura soutenir ndax ñun daanaka jëkkër nécessité la ndax ñu ngi liggéey ba liggéey jotee dañoo liggéey ba tukki jotee dañoo tukki ba tabax jotee dañoo tabax macha allah kon jëkkër nécessité la bu ñu gisee ku ñu jàppale dooleel ñu yërëm ñu tete ñu dañ ciy ànd ak moom ndax ñun complément rek lañ def nañ sunu jugé jugé def nañ verbe complément rek lañu ñu yor jëkkër jëkkër joo xam ne dañuy suturaal rek ndax lu ñu bëgg am nañ ko ñu ngi liggéey macha allah. yàlla jéeri waay nee naa la sama xarit bi Cobra reménage ngay dégg fii ci réew mi ak lu la saf sama waa ji nee naa la kenn du yow jàllo jéeri mën maa teral mën maa jàppale mën maa soutenir nee naa la boutique bu ma fi ñëwee lu ma teg lu ma laal danaa tegal soxlawul sama dara sama xarit bi nee naa lu yàgg lu ne dëgg la nee naa la tey amitié jarul fësal ci ay internet jarul fësal ci ay jarul <laughs> jarul fësal ci ay statut tey di nga àndandoo nit seen ànd da ngay bëgg sax mu dem jarul statut jarul wane parce que fii loo fësal loo wane mu yàqu bëggante ma ak yow te loolu yàgg na sama xarit bi waaw yàgg na may ñëw kees di la fekk ngay ñëw Dakar di ma fekk mu nekk lu yàgg nga nekk nit ku baax su ma amee dara sax danga ma téel def ci léeg lii investir lii ak lii tey su ma demee ba 6 mois bu jot wala 4 mois bu jot ma yéeg ci avion yi ñëw grâce à yow ndax yaa may conseil chaque jour naa ma defal nii ak nii kenn du yow amee internet sans limite yi mami Diallo mami Cobra euh, ki nga xamante ni mi ngi Dakar borom Dakaru Njaay dama <laughs> ah nee naa la duma ci wet benn yoon ki nga xamante ni mooy ndoy maali maram ndoy sama mag ji màggee ndoy sama yaay ji happy birthday ngay dégg yaay petit yaay Fatou Mbaye waaw dafa nekk sunu mag ju baax sunu mag joo xam ne jigéenu référence la Fatou barki Cheikhul Khadim ku mel ne màgget gi suma ko gis ndoy maari maram ndoy du lay bañ a wax sax bañ la catu waaye koo xam ne waxtu du ko raw duggul ci kenn Fatou màgget détaayul tooñul xuloowul xastewul dàggsantewul non kooku yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla jàppale lépp lu mu bëgg ci liggéeyu ndeyam yal na ko yàlla defal xale bu baax bëgg yaayam uuf ay rakam màgg dañu dalaa bëgg ba bëgg ñun kon yow happy birthday ngay dégg longue vie à toi santé de faire prospérité et beaucoup de xam li nga bëgg ci sa xol bi ndooy maari maram ndooy bu dee xale ba sa yal na la ko yàlla defal sama mag ji baax nga bëgg nga ñu non màggat euh, bis bi incha allah nga xam ne am ngay rakk de barki cheikhul xadim jàmm ndeysaan euh, di leen jox dig daje euh, ci beneen artiste ak beneen ndaanaan nee naa leen gëj a ñëw bi laay jooy ak gëj a feeñ bi waaye Fatou de retour euh, du yomb waaw waaw Fatou de retour Fatou de retour nee leen face à Fatou ànd ceeg sama doom Toumani Ndiaye nee leen ñun bu ñëwee rek retour bi day neex macha allah dig daje ci beneen artiste ak beneen nee naa leen jumel buti yi jumel buti xale yi nga xamante ni ñoom tamit euh, ñi ngi bay seen waat ci lim nekk nee naa leen bu ma bellee ci rêve rose rek yéen la naa leen tey yéen a ma fii yéen ma sañseel jumel buti yu borom Pikine xale yi nga xamante tam ci génération bi lañ bokk euh, euh, daje ci beneen artiste ak beneen daanaan baay bye <laughs>